ñi nga xam ne mooy conseil collectivité des collectivité territoriale bi nga xam ne nee nga woon mënuma ko wax mhm. euh, génn na tont opposition bi nga xam ne nee nañu conseil bi haut conseil bi amut njariñ tontu na mhm. leen nag wax na leen ni leen dipp boobu ba léegi ñoom waxuñu ci defuñu ci dindiwu ci ñoom daal ñi ngi ci ab liggéey di bind ay rapport di ko jébbal président Sall ñoom daal ña nga ca lañ war a nekk incha allah euh, Walf Quotidien bokk ci ñi nga xam ne xëy nañ bind ni président Sall ay la yéwén fële ca biti réew daal moom dañ ko faalalal tapis rouge pourquoi pas waa Sénégal bañ ko pourquoi ñu bañ ko pourquoi bëgguñu ko ndax fële daal ci bitim réew alaaji moom dañ ko faalalal tapis rouge bitim réew daal moom gongo président Sall mais fii ci réew mi daal ñoo koy dingat euh, président Wade am na sax ñoom it démb ci ay yéenekaay ku ci mel ni tribune euh, bind na ni président Sall président Wade bokk wax dëgg yàlla mi ngi ci yoonu wala bokk pare na pour bàyyi coalition Yewwi Askan Wi am na ñu ko xëy yenn kaay yu xëy di ci waxaat daal ni jàpp nañu ni coalition bile dana tas tasar mu Yewwi ak wàllu nga xam ne àndandoo woon nañ ba am ndam lu rëy ci élection yi alaaji kon ñu mu commencé ko Pape Mayel mi nga xam ne moo wax ci turu haut conseil bi nee na daal opposition bi nañu bàyyi seen caaxaani ñoom ñi ngi ci li ñu nekk. waaw li ñu ne moom la opposition bi nga xam nag opposition bi dañ ne amul njariñ ñoom moom gañ bu fekkee ne dafa ñëw ngir tontu na wax njariñ nga hmm. waxee njariñ nga waaye bu fekkee ne ñu ngi lelu di bind di jox président li ngay bind réew mi xamul lu mu te réew mi ñu lay fay moom réew mi moom yëg nañ ko metti na lool ci moom donc ñoom <laughs> nañ wax kañ ban njariñ la moom dafa war a leerale li ñuy bind la war a wax ne lii lañ bind ak lële rapport yi ñuy def maanaam rapport mooy haut conseil li muy liggéey rek alaaji liggéeyu dara ah lu muy liggéey haut conseil yow xam nga ñaata milliards lañ leen di nattal par an. Ah, huit milliards lañ wax de. liñ leen di nattal li leen di nattal xam nañ ko. waaw mais rapport yi nattal wax li ñuy liggéey ba mérité huit milliards yooyu. haut conseil. collectivité des territoriales. waaw léegi ñooñu lu ñuy liggéey. ah mais alaaji xanaa tur bi gudd réew Jóob alaaji mos nga gis ab ab ab institution bu ñu samp te liggéeyul. waaw ban la. ñoom nañ ñu wax li ñuy liggéey ñoom ñoom. mais li ñuy liggéey mënoo koo xam laaj parce que ab bànqaas la am kañ amul mais ab bànqaas la ci réew mi koo xam ab bànqaas la ci réew mi <laughs> li ñuy liggéey mënu ma koo xam kon kay mooy wane ne amul ñu njëriñ yow loo xamul am amul njëriñ ah déedéet loo xamante ñoom ñoom mënuñu ko expliquer ñàkk tële koo expliquer moo tax mu ne li ñuy def ay rapport di jox président mu leen neexee sax ñu bind ci président ceeb bi saf na rapport maree ma mën a togg rapport président suba looy añee dooma daa wala yaasa loolu rapport la ñun xamuñu lan la nañ ñu wax nañu ñu lii la opposition bi li ñu wax dañ ne lii amut njariñ xaalis bi ñu ciy def mën nañ ko jël dugal ko fële feneen. waaw yaa ngi dégg. Mhm. donc amut njariñ loolu la ñu wax. waaw amul ah, bi fi mu toll nii boo. mais yàgg na fi na fi. waaw mais amul njariñ te man li tax ma jàpp ne am na njariñ Idrissa Seck mi ne woon amul njariñ bi mu ñëwee wax dëgg yàlla nee na woon bi ma soree waa ji dama koo xamuloon mais bi ma ko jegee macha allah kon alaaji ma jàpp ne Idrissa Seck xam-xam bu bari bi ko yàlla may borom xat fakk kabla alaaji bu ñëwee ni tekk na xamal ni haut conseil bi am na njëriñ alaaji alaaji ubbi naa sa micro de njooku mm. mm. haut conseil bi laa wax war nañoo sukkandiku ci ci Idrissa Seck ni am na njariñ parce que moo ko fi daan ŋàññ di ko dingat di ko xarab tey bi mu ñëwee incha allah nee na macha allah njoogu hmm. alaaj da ngay liggéey de maa ngi liggéey kay <laughs> yow mi xam nga yaa ngi wax haut conseil mais yow mi liggéey waaw mais xam nga tamit di wax ci wax joo xam ne tamit non man dama laa centré mais dama laa centré mbir mi dama ñu la ñoo wax ne amul njariñ te nekk ay borom xam-xam léegi nee nañ am na njariñ nga centré ma bal ma sëgg xanaa liggéeyam non bal bi dama ko du laal parce que. mais de fi mu toll fii da war a def rapport joxe de parce rapport bi mooy nga nga wax nga liggéey nga wax. rapport <laughs> ah. da a def rapport. ñooñu ngi def ay rapport nga ni seen rapport amul njariñ. mais dama laa dama laa sant la ñoom. waaw. opposition bi da ne lii amul njariñ loolu pour tontu opposition bi da ñëw taxaw daal ne man ñun def nañ fi lii depuis que ñu faloog léegi lii ak lii ak lii sunu bilan lii la dañuy teg bilan. waaw. wax ne lii mooy seen bilan. ok sénégalais yi ñooy jugé ndax am na njariñ wala amul njariñ d'accord c'est pas que ni yéen opposition bi yéenay wax ne. am na njariñ wala amul njariñ mais en tout cas biñ ñu tegee ci poste bi. boo boog léegi diirëb nangam la lii ak lii mooy sunu bilan def nañ ko sénégalais yi nag lii ñu def am na njariñ wala amul njariñ léegi Pape Malick Thiam léegi Pape Malick Thiam dégg maa ngi def ay rapport waaw léegi Pape Malick Thiam dégg na la alaaji dina la tontu léegi nga wax nii comme kenn rek sénégalais te yaa ngi wax ji turu sénégalais yu bari léegi dina génn léegi wax li nga wax rapport ak kii du ko wax de dina ko wax de incha allah Pape Mayel xam naa ne dana ko dana ko wax bu ko jaree sax mu ñëw ci takku soow mu leeral ko te loolu laa bëgg sax na ko Omar Gueye woo ci takku soow mu ñëw leeral ko wóor na yàlla dina ñëw woo leen ko mu ñëw takku soow ñëw xam naa leen non non kii li mu nekk ñu ne ko